jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média mbokk yi teewlu xibaaru marax yi ponk ci gën a fës ku jeeg politique gi bootu ci manko wattu Sénégal ñoom daañu fekk ji waa société civile loolee la ñu wax muy nag kalaame Franck Timis ca OFNAC seeni avocat ne dossier bi du fi yem daanu ko yóbbu ba New York ga ca Amérique avocat yooyu ak ñenn ci njiital front bi doon ci janoog taskatu xibaar yi lu aju ci jàngalekat yi ci daara kawe yi de chercheur la leen duppee A yi recteur bu UCAD dëggal na ko ci atum 2015 lu toll ci juróom-ñetti fukk ak ñaar ca ñoom dem nañu à la traité loolee ñu jàpp ni nag dina sooxeel euh, njàng mi léeg-léeg étudiant sax yu yëngu ci wàllu masteur ñoom fi mu ne gis encadreur jafe na leen secretaire général adjoint euh, bu SAES e ne dara waralu ko lu may anam bi ñu jëlee jàngalekat yooyu ci daara yu kawe yi ndaw yu kaskas nekk ca département bu Podor dox nañu ñaxtu gannaaw ab dogal bu tukkee ca sous préfet ba dogal boobee tere nag ñu amal fa ay yëngu-yëngu ci wàllu caada la yëngu-yëngu yooyu sax ñu piree woon ci euh, Baaba Maal ngir nag mu amal fab concert bu mag acteurs yi di yëngu ci wàllug euh, meew fii ci euh, Sénégal ñoom nag li leen naqari bokk na ci léeg ndox mu ñu mënta joteel waaye tamit suuf soo xamante ne nii war nañu caa liggéey ay jafe ci wàllu lekk loolee xamle nañu ko tey ji ci ab lël bu ñu fi doon amal wàllu meew bi nag fii ci Sénégal nee nañ koppar yi muy jur bari na xayma nañu ko sax fi mu ci juróom fukki milliards suñuy koppar mbokki ponk yaa ngi nii ci yaatal léegi léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni ñu ko waxee woon ci ponk xabaar yi waa kujje politique gi fare ci manko wattu Sénégal ñoom nag daañu def ni waa société civile tamuy clamé Franck Timis ca nag moom homme d'affaires boobee maître Seydou Diagne ak maître Siré Clédor lii ñoom nag lanu wax mooy dossier bi du fi sax yam daanu ko yóbbu ba New York ca Amérique foofe nag ngir gën faa mën a clamé loolee la ñu wax ñoom avocat yi tey ji nag ñu doon ci janook taskatu xabaar yi ñoom ak ñenn ci njiital front bi leeral lii dañ ci ànd ak Alassane Ba Leya Niafouna mu mel ni nag liggéey bi tàmbali na si ñoom maître Seydou Diagne ak maître Ciré Clédor Ly li njëkk nag li ñu war a def moo di fexe ba defendre nit yi ñu cité ñu bokk ci plainte bu Franck Timis déposé ca bureau procureur de la République te ñu bokk ci front Manko Wattu Sénégal. léegi nag opposition bi ñun ñett lañu man Mohamed Seydou Diagne ak Assane Dioma Ndiaye ñu ne ñu ne ñu taxaw ci ñaari mbir. benn bi moom moo di ñaxtu bi ñu yóbbu ci procureur de la république ñu taxawal leen fa ci mbirum plainte boobu. avocat ku jë politique yi nag fas yéene bokk ci plainte bi nga xam ne moom la maître Assane Dioma Ndiaye nekk awoka waa société civile déposé fële ca nag ñii di xeex àq ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal société civile bi ñoom saisiroon nañu kuréel bi nga xam ne. moom mooy saytu lépp loo xam ne ci ger la féete ak li nga xam ne que maanaam euh, dafa di lu lëndëm te mu doon ci xeet bu nuru xeetu ger loolu moo tax mu dal seen kaw léegi ñun dañuy dugg ci mbir moomu attaqué Frank Timis dossier bi nag ñoom ñu ne dinañ ko yóbbu ca New York ñaari avocat yi ne bu jaree sax ñu saisir yeneen instance biti réew dañ ko def. Amérique it ñun euh, jokkoon nañ fa ak ay avocat yoo xam ne ñu ngi liggéey ndax Amérique dafa am benn euh, loi boo xam ne que euh, lépp loo xam ne que ñi nga xam ne que dañoo nekk dañoo yor ay ay société dégg nga dafa am am bërëb boo xam ne que dañ fay daje bërëb yooyu ci la ñuy dogal maanaam lu ci gën a bëri ci njëg yeeg yu demee noonu mu doon ay bourse bu fekkente ne guerre la bëgg dina ko am ñaari avocat yu front manko watu senegal di artu kii di Franck Timis ñu ne nag duñu bàyyi dara ngir am ndam. ci xeex pour dénoncer des Euh, ku jekk politique gi di dànkaafu Franck Timis moom euh, maître Ciré Clédor Ly la mu wax nag ci plainte bu Franck Timis nee na plainte boobee amul lenn lu ca bees muy yeneen liste yi ndax booy xool plainte boobe fukki nit ak benn kepp la joxoñ baaraamu tuuma ñu teewlu ko maître Ciré Clédor Ly ci micro Alassane Ba fi mu ne front bi day nga euh, ak société civile bi ñim ci lim fukki nit ak benn lañ loolu la annoncé woon boobu ba tey ñun yëguñu leneen keneen nit lu weesu fukk ak benn yi yëgaguñ ko xamaguñ ko léegi kon bu fekkee ne ko moom moom ne woon na ba téeméeri nit mun na fa àgg fi mu ne fukk lañ fukk ak benn lañ tolloogu loolu lépp ñu ngi xaar bu woowee parce que bu ko neexee mu woo Sénégal yëpp ndax fi mu ne xeex bi sénégalais yi la timis sonk opposition bi dafa mel ni symbole la moom moo di yéen ñi Sénégalais yi ne leen muut bàyyi leen ñu lekk. ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru am nañu ay euh, jafe-jafe foofee jàngalekat yi ne ci daara yi nag nee nañu euh, danoo magal euh, kii directeur bi di professeur Ibrahima Thioub sax dëggal na ni ne nag am nañu ay jafe-jafe ci wàllu jàngalekat yi nga xamante ni ñoom la ñu naan chercheur de rang A loolee dafa wàññiku booy xool ci atum 2015 lu toll ci juróom fukk ak ñaar dem nañu retraite loolee nag ñu ne dina indi tolof ci njàng mi ndax booy xool sax étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci masteur jafe na lool ngir ñu am encadreur secretaire général adjoint bu SAES e nee na dara waralu ko lu dul anam bi ñuy jëlee jàngalekat yooyu ci daara yi Aminata Mbaye Sow université Cheikh Anta Diop de Dakar mu ngi dalal lu ëpp juróom ñetti fukki junni ci ay ndongo boo ko méngaleek ñi jàngale foofu ëpp nañu junni ak juróom ñetti téeméer loole nag di différence bu doy waar li ci yokk mooy jàngalekat yu bari ci ñooñee ñu ngi dem retrait boo xoolee at mu jot lu mu néew néew téeméeri téeméeri jàngalekat yu ne ci daara yu koy danañ dem à la traité te ci téeméer yooyu boo ko jëlee daanaka genn wàll ga ñoo xam ne si mooy maanaam ay professeur titulaire de rang mooy ñi ñi nga xam ne dañoo plafonné ñoo ñooy dem. ci 2016 lim bi mën naa ëpp foofulee te loole bu amee yenn ci ay ndongo dañuy am jafe-jafe ngir ñu am ay professeurs yu leen encadré. am na ay cas am na une trentaine d'étudiants daaw tamit. dañu amoon problème problème encadrement parce que souvent ça dépend si spécialité bi tamit da ngay am spécialité ba da nga koy choisir mais bu bëri ay professeur day am difficulté comme cas égyptologie département égyptologie égyptologie spécial boo xam ne bëriwul ay spécialiste ñu koy ñu koy ñu ko ñu professeur yi fa nekk bëriwuñu xoolal li ma leen wan nii lépp fi ñu toll nii lii lépp maa leen di encadré ren te am na yu ñëwagul yeneen a ngi fële te ñii ñëpp war naa liir naa ko ñaari yoon bi noonu bi mooy ñettil bu mujj bi boo xam si ñoom dañ ko war a maanaam ay ndongo yoo xam ne master lañ dañoo war a soutenir janvier xam nga lii boo ko boolee ak sam njàng sa jàngale bi ngay jàngale ci amphi yi bëgg a war gëstu ji bëgg a bind xam nga loolu moo tax daanaka ah, jàngalekat yi ñooy gën a ñooy njëkk a dee ñëpp. Ali Fane ci situation boobee la nekk moom étudiant la master 2 histoire et relations internationales fi mu toll nii dafa war a soutenir maanaam gën a gëstuwaat ci wàllu njàngam waaye amagul professeur bu ko ci jàppale. Euh, sama prof bu ma doon encadré l'année passée dem na retraite donc ce qui veut dire aujourd'hui euh, jusqu'à présent xamaguma fan lay féetoo pour mun a euh, duggante ak beneen professeur boo xamante ni dina ma permettre ma mun a def sama sama sama rapport mémoire. ngir xeex départ yooyu le dañuy faral di tàggat ay maîtres assistants ngir ñu remplacer leen. kii di secrétaire général adjoint bu SAES e nee na doxalin boobee du li gën. indi mbir mi fi ñu mu jot. lu mat téeméer dem léegi bu te kooku professeur boobu dem bu université bi jël keneen du jël professeur day jël assistant léegi assistant boo xam si day doog am doctorat bu ñëwee toog bala moom miin bay jàngale bala moom miin bay gëstu balaa moom miin bay encadré xam nga ne loolu day yàgg fi mu toll nii daar yu kawe yi di jànkonteel ak ci problème jàngalekat bi ci gën a fës di fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar nga xam ni ndongo yi takku nañu lool ñu jàpp ni ministère de l'enseignement supérieur ak ak ñëpp ñi nank wàllu njàng mu kawe mi war nañu soppi politique balaa béy di woy mbuus Aminata Mbaré Sow ñu di la jaajëfal niñ ko waxee woon ci ponk xibaar yi ndaw ñu yeewoo fële ca Kaskas nekk ca département bu podoor amaloon nañu doxu ñaxtu ngir nag ñaawlu ab dogal bu tukkee ci sous-préfet ba dogal boobee nag di tere ñu doon fa amal yëngu-yëngu ci wàllug caada yëngu-yëngu yooyu sax ñu piree woon ci Baaba Maal ngir nag mu amal fa ab concert bu mag ndaw yi nag mer nañu ba mu jaral leen ñu ne sous-préfet ba na able dañuy teewlu ñenn ci ñoom ci micro Ousseynou Diop. dafa doon li nga xamante ne dafa metti lool dafa metti lool munoo nekk ci gox gi nga xamante ne yow munoo génn bu tawee doo génn bu nawetee doo génn bu taayee doo génn gisoo autorité bu la wallu gisoo gisoo ku la andil ndimbal ñun ñu organiser wu bu def suñuy activité yi nga xamante ne dinañu mun a juróol dara. waaye autorités yi ñoo taxaw ñu ne lank loolu du fi amee yooyu yëpp ñu tënk ko boole ko su amul lu muy def lu dul bàyyi ba ñu ne ëllëg ëllëg la concert ak dépense yëpp ñuy def moom mu nañ nañ dagg kitans mu nañ nañ signé suñu billet trésor public mu nañ nañ bind une autorisation officielle ñu amplier ko su jot préfet jot ah ah commandant gendarmerie jot ñu ñu lii la ñu génne arrêté d'interdiction nous exigeons pour la paix et la sécurité de la commune, nous exigeons le départ sans délai du sous-préfet. ñu wax nag ci lël bi nga xamante ni nii ñiy yëngu ci wàllu meew bi fii ci Sénégal amaloon nañu ko euh, tey jii lañu seetlu nag mooy facture bi ci wàllu ko meew mi maanaam euh, xayma gi daal toll na ci juróom fukki milliards ci suñu koppar bu ñu seetloo ci atum 2004 lu toll ci téeméeri litre la ñu nemmeeku ak fukk ak ñeent loolee yokk nag ci atum 2014 ndax toll na ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ñu gis ni meew mi nag mi ngi jur koppar naam waaye acteurs yi ñu ngi jànkonte lay jafe muy sàmmi secteur privé bi ba ci élus locaux yi seq nañu waxtaan ku ci ne wax jafe-jafe yi ngay jànkoonteel Maimouna Ndiaye lu jege juróom-ñetti fukki nit yoo xam ni ay kilifa la ñuy yëngu ci wàllu meew mi seen secteur bi nag liñ ci bëgg mooy ñëpp mën cee jot loolu nag bëgg nañu li ñuy def lépp ñu gën koo mën a fësal. même su fekkente ne gis nañu ko ni production mi ngi yokku am nañu benn jafe-jafe mooy facture laitière ba léegi dafa important parce que. Aujourd'hui, on tourne autour de 50 milliards, hein? un peu moins, mais 5, 49 milliards et quelques, pratiquement 50 milliards. loolu nag lan moo ko indi mooy su fekkee da nga xool ni nit di yokkoo taux de croix bi moo ëpp taux de croix animal bi. ni ñu liggéeyee meew mi ba ci sax niñ koy jaayee ñu ne lu bari des na loolu nag laaj na ñu sëgg ci samp ci ay waxtaan yu yaar. il faut ñu un peu améliorer càmm gi bañ euh, donc. fexe ba ndox am fexe ba lekk jur gi gën a baax parce que meew lu ci ëpp mooy ndox ak lekk su ko amee lekk jur dina dina ëmb dina wasin dina joxe meew. élevage dañ ko war a dañu ko war a taxawal du élevage transhumant sax baax na wante élevage boo xam ne itam dañ dañ ko jëf euh, ci biir kër gi boobu tamit bu baax la parce que boobu ngay mën a am yàpp bu baax boobu ngay mën a am meew bu baax te boobu tamit lañ nit ñi di njëriñoo ci nit ñuy éleva élevé. su fekkee yow toogoo benn palaas nekkoo benn palaas même nit ku la soxla du la jot. léegi ñun APS dañu dañu dañu bëgg nit ñi nekk benn place élever élevage boo xam ne daal dana méngoo ak jamono. projet bi ñu duppee code pastoral fi mu toll nii dëxën nañ ko ba pare lu ëpp téeméer ak juróom benn article yoo xam ni fi mu toll nii ñu ngi xaar ci taabal ji li ñuy xaar rek mooy ñu valider ko bu ko defee ñi ñu duppee élus locaux ñoom nee nañu dinañ ko yeggee association bi nga xam ni moo ëmb maire yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Sénégal ñu bay ci seen waar. Maymouna Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci procès bu alkaali Cissé moom mi fi nekkoon député ñaari fan kepp ci des fukki fan ak juróom-ñett lañu ko fas yéene àtte fële ci Arabie Saoudite foofee ñu tëj ko fa mat na ñeenti at ci tey tuumal ko nag mbirum njuuj njaaj tey njabootam ñi ngi sàkku ci nguurug Sénégal ba ci kilifa yi ñu dimbali leen ci procès boobee ndax boo moyul dana metti ci seen mbokk moomee leeral li dañ ci ànd ak procès bu ex député Alkali Cissé ñu ngi ko war a amal ci Arabie Saoudite njabootam tiite ak jaaxle ñoom nag di ñaan président Macky Sall mu daal leen jàppale. dañu am lu ñu metti alkaali dañ ko Cissé fii ba pare ba mu seet wecc yàlla dem jóge fii dem tukki jàppa ko Maroc ñun demoon nañu ñu ñaan pour président dimbale ñu mu indi ñu alkaali alkaali mag la te sonn na. te lu mu def ci réew mi surtout ñun Kabada dafa bari. alkaali Cissé mu amoon doole loolu fii ci diwaanu ba pare nag mu nekkoon ku mun a maye loolu. alkaali liggéey na foofu ay juma gas nañu foofu ay teen teen du mu gas si dëkk yi mën nañu téeméer ak ñaari fukk ak ñetti lu mu liggéey ci école dafa bari moo indi foofu courant moom ñun waa Kabada yi ñun ko jooy. ak waa Casamance yëpp ñu ngi ko jooy ñu ngi ñaan yàlla nag <clears throat> ñaan président Macky Sall mu dimbale ñu pour mu mun a ñi indi alkaali alkaali dellu si réewam. Saloum Cissé moom nag di marok Maroc ak Arabie Saoudite ñoom respecté wuñu justice sénégalaise. waa Arabie Saoudite ñoom ci ñun suñu xel suñu xel ak suñu yaakaar ñoom respecté waa Sénégal waa Sénégal atte nañu atte ba pare. waa Arabie Saoudi sànni fale atte bi ñëw jàppaat kooku kon ñu ngi ñu ngi yaakaar ne léegi Sénégal mu ngi mel ni du réew. njabootam di ne ancien PCR bu njaman la cel di Alkali Cissé moom dafa feebar ay ati yàlla ba pare dafa demoon Maroc pour faju waaw Alkali fu mu nekkee ni man mii démb waxtaan naa ak moom nu ma waxtaanee ak moom moom dafa feebar même wax am bi setut kon nañu dimbale mu ñibbi si Sénégal ci njabootam ñu faj ko. ñu dem ba Genève centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue am na nag lu mu teg ab prix la euh, prix yi nag ñu duppee njiitu réew mi Macky Sall euh, prix boobee li ko tax a jug rek moom mooy euh, fexe daal ba képp koo xamante ni yaa ngi dox ci tànk jàmm rawatina ak fitna gi am ci Afrique nga fexe nag ba lépp daal di ànd akub dal lu aju nag ci prix boobee nuñ ko waxee rek ci ab concept lañu ko tëral fësal nañu ko fële ca Genève mi ngi nekkoon décembre dañ ci ànd ak Ibrahima Camara. di ab kuréel bu jagleel njiit réew mi Macky Sall parrainage prix bi ñu ko duppee mbébétam mooy lawal waxtaan ak diisoo ngir fànqantal ay ak masiba yi ci biir réew Afrique yi. L'objectif de ce de promouvoir prix bi euh, lu ko tax a jóg euh, mooy fexe euh, ba ñaax nit ñi si wax ngir fexe ba yenn réeru gi ak ñàkk déggoo yi mën a ñàkk ci diggante rawatina ñi nga xam ne ñoo seq réew Afrique. ont toujours été euh, aggravés par l'absence de dialogue. prix bi ñu jël tuddee ko prix Macky pour la paix. bari lool ay ponk yi ko wundu. en page neuf du document que nous avons eu aujourd'hui téere bi ñu euh, tënk fii tey euh, bu ngeen ko seetee bu baax am na fukki ponk ak benn yoo xam ni euh, càmbar nañ ko te daana ko suqaliwaat ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru mai bi ñu dëgmal. à ceux qui ont marqué c'est un progrès ciblé et constructif. li tax nag ñu tànn le président Macky nekkul du coupe bu mu gagné. déedéet dañ ko gis ni mu ngi góor góorlu ci wàllu woowu. au conseil dialogue social boobu mu teg pour ñuy waxtaani lépp mu teg tamit journée du dialogue national maanaam le vingt 28 mai moom Sénégal fu mu président mënti teg day ñëw toog woo ñëpp ku nekk ñëw wax li nga xalaat loolu dafa rëy beneen élément bi mooy journée euh, dialogue national bi mu wootee woon te ñëpp ñëw. waxtaan ak diisoo bi sax Sénégal waaye tamit yeneen i jéego yu bare bare yi si mim réew def tax na ba ñu tabb njiitéro mi Macky Sall ngir turam ne si prix boobule. Djibo Leyti am na yaakaar nag ne Yaya Jammeh dana nangu euh, dëgg moom moomee euh, nekkoon jëriñ ji dénk wàllu jëflante ak biti réew euh, ci nguuruk Abdou Diouf Djibo jibo Ka ne nag nañ ci wax la balaa nag fitna di am ci Gambie am na yaakaar nag ne ndawi CEDEAO yi la ñu leen sas daanu ko matale moom nag na mu gisee taxawaayu yaay Jammeh mooy nag dëppawul ak yoon ñu teewlu ko jibo Leyti ci micro Papa Abdoulaye Dera maa ngi ñaan Yaya Jammeh daal na nangu lu ko lu ko peuple am wax élection na yoon la commission électorale indépendant wax na dëgg ndaxte loolu mooy liggéeyam te lu su defee lu mu war a def day jum trop njum seen bu rëy yaakaar naa ni du du dem ba foofu. respecté waa pas brûler son pays. yàlla tere rek Dieu nous yaakaar naa ne duñu àgg foofu fekkee ne yàlla bëgg na Gàmbi bëgg na jàmme duñu àgg foofu. parce que loolu dafa dafa dayoo day ëpp doole day. pour yow diplomatie bi dina sotti. mais bien sûr day sotti day sotti y' a pas de y' a pas de bañ sotti eh, maanaam la présidente Libéria dem na foofu temps yële dem barki démb ak ñoom Boiry et con et et la Sierra Leone ils ont wax naa ñu ak président Jammeh ak Barrow ak coalition yaakaar naa ne xam lu addin bi wax ak ñoom bi kenn àndu lu mu wax jaayee du doful quand même chef chef de la maa ngi jégalu donc il faut ñu xam ne bi mu sunu suñu biir ñu Sénégalais ndànk rek dana baax. ñu wax ci tàggat yaram benn ponk kepp muy juróomeel juróom-benneelu journée bu Ligue 1 stade Mbour ak ASC Jaraaf dañoo témboo fële ca stade Demba Diop ndam demul ndam dikkul ku ci ne benn bal nga dugal leeral yi dañ ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra Cheikh Tidiane Dione match bi doxoon diggante jaraaf ak stade de Mbour bii nag moom mooy ñaareelu match bi nga xamante ne ñii di waa jaraaf ñu am ndam gannaaw ba nga xamante ne ñoom dañu leen mëne woon ci juróomeeli minute bi goney Malick Daffy ñoom ñu ngi égaliser ci soixante-dix-huitième minute bi ñoom nag lii di manque d'efficacité daanaka moom la ñu wane woon ci bile jongante. jël nañu bii boo xam ne waruñu ko jël ci cinq minutes de jeu parce que bal la boo xamante ne amuloon danger en deuxième mi-temps bi defee changement. Euh, génnee Ibou Diop reproché ne Gassama ci attaque bi dans l'axe du but gis nañu Gassama bu mu duggee yenn attaquant am virevoltant am na vitesse am na percussion am na lépp et li ñu xalaat ci moom parce que ñoo ko yor 3 4 ans xam nañu jour boobu te bi ñu xalaat ci moom defal nañu ko jox nañu ko mooy dugal nañu bii boo xam ne c'est un but d'anthologie action personnelle mu jël dribble défense bi yëpp croisé ko fële côté opposé amaat na beneen boo xam ne nga xamante ne dañ koo dóoroon ci matcham bi wees match bi la ci amee. ñii di waa Jaraaf jàpp ne ñoom nekkuñu benn yoon ci crise malgré gagné nañ ñu wala dañoo gagné ñu nul tey donc mën naa ne ñun ñu ngi si yoon bi di liggéey quoi parce que boo xoolee àdduna xam nga dafa am ay dafa am ay hauts et donc mënoo nekk di di di kontaan chaque jour mënoo nekk di kontaan chaque jour donc xëy na yàlla li la nii la ko dogalee donc mën naa ne donc ñi ngi ñi ngi si yoon bi quoi ñi ngi si yoon bi di liggéey. ñii di waa stade Mbour ñoom di rafetlu résultat final lu match bi. résultat 1-1 bi duñ ko xeeb nag lu baax la. ki nga defaat mooy gën a am am fraîcheur gën a travailler technicité bi gën a travailler confiance bi surtout également loolu tam dafa solo. alaataa nag ñuy xam résultat bi dox diggante Casa ak Guédiawaye FC mun nañ jàpp ne ñii di waa Jaraaf ñoom ñooy leader ci Ligue 1 gannaaw ba ñu amee fukki poñ ak benn ci jamono joo xam ne ñii di waa Stade de ñoom am nañu fukki poñ daal di nekk quatrième ci classement bi. sant leen gërëm leen Cheikh Sadibou Diarra Cheikh Tidiane Dione mbokk yi fii la ñu yem ak yéen euh, ci xibaar yi ñu farewoon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi mu sotti cant ak gërëm ñeen na leen Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew léegi léegi euh, jukki leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen